أعوذ بالله من ci internet Allô Sénégal gannaaw ba leen nuyoo di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen lu dul jàmm jàmmoo ko gën yàlla na jàmm sax fépp ñu koy doxee di ko waxee dañuy dooru waxtaan wi ak naqar bi nga xam ne moom lañuy ñuy daal di yeewoo di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sunu xarit sunu maman sunu lépp wujj na yàlla sunu borom muy maman Miram Dior nekkoon ku ñu xàññee lool ci milieu cinéma fii ci Sénégal rawatina bitim réew ndax mën liggéeyam bi nga xamante ne daan na ko liggéey role bu ñu ko mësaan jox assuré na ko tey waxtaan wi dinañu waxtaan euh, si li nga xamante ne moom di jëmb ju sell gii donte ko si milieu cinéma lañ ko ràññee waaye daan def si li nga xamante ne moom di restauration daan na ci yëngu daan na yëngu tamit ci li nga xamante ne moom euh, Euh, bu ñu waxee nag maman Myriam Dior xam ni moom moo di waajuru euh, Virginie dañuy daal di jaale ki nga xamante ni moom moo di Virginie bokk ak moom naqar yi ak tiis bi ndax métti na lool nga ñàkk waajur dara gënu ko métti mënoo ko comprendre nag tànk dundoo ko ñi nga xamante ni nag euh, jot nañ kaa dund mën nañ xam lan moo di métti bi métti bi foo ko natt rek weesu na ko te Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar foo romb. wala foo jaar moom la ñuy waxtaanee YouTube bi Instagram bi statut yeeg yooyu yëpp tey jii euh, lii rek euh, maanaam day firnde def lu baax rek am solo nit ki boo nekkee si àddina boo nekkee si euh, mé benn métier jàpp ko bis boo si jógee nit ñi dinañ la seedal seedal bu baax. tey jii ku si nekk mën nga koo ñëw def say témoignage ndax lan euh, li nga xamante ne bu dul benn yoon di ñaari yoon bégal na la bu dul benn di ñaari yoon def na rôle boo xamante ne yow tey jàng nga si loo xamante ni ëllëg si biir mën na la euh, jari tey jii mën nañ ko delloo jukkal dañu ne jàmbaar bu euh, li daanoo si xare wàcc na ndax tey lii rek jigéen ju mën góor nga nga nekk jigéen teewut nga doon euh, li nga xamante ne moom moo di yaawu fus jigéen dëgg day takk sëram jigéen dëgg day nekk si li nga xamante ne moom la war a nekk ba ëllëg bu fi jógee ku si nekk mën koo def ay seede yu baax ndax tey da ngay xool nga dugg si site internet yi fépp foo mënti dugg kàddu gi benn kàddu rek la moom moo di baax foo ko musa gis day ree waxtaan ak nit mu xam la ak mu ñàkk laa xam la yemale yow mi nga xamante ne yaay dund ba léegi lan nga mën a jàng si lii lan nga mën a li nga xamante ne moom moo di xalaat si lii mu yàlla sunu borom buy jël du yàlla sunu borom buy jël du xam ndax fii nga bokk wala fee nga bokk yàlla sunu borom bu lay jël di xam yow diine bi nga bokk wala diine bee nga bokk yàlla sunu borom buy jël du xam ko baax nga wala ku bon nga déedéet sa àpp mooy jot nga dem kon lu waaye def boppam nañuy def lu baax àddina fii kenn du fi des ñun ñëpp ay dem kon tey saay suñu borom bu jëlee kenn yóbbu yow mi nga xamante ne yaa fi des jéemal nekk si lu baax saay bu suñu borom jëlee nit yóbbu yow mi nga xamante ne yaa fi des jéemal defar sa àddina di des yëpp tey jii lii rek mën nañoo yee tey jii nga xool ñaata weer su ginnaaw ku ko newoon di nga wujjaal suñu borom tey ji même bu ko gëmul dina doon loo xamante ni tey euh, dina ko euh, touché trop kon tey fii euh, BD. buy ñëw du tàggoo nañuy xool bu baax tey rafetal li nga xamante ne moom mooy dox suñu diggante ak sunu borom di rafetal li nga xamante ne moom mooy dox suñu diggante ak suñu borom lu waay def boppam kenn deful kenn dara yow mi nekk ci àddina jàpp ne ëllëg doo fi jóge walla fii ngay nekk ba faw yaa ngi nax sa bopp nañuy dej nañuy delluwaat li nga xamante ne moom lañ baaxoo mu di liggéey jàmm yàlla ba ëllëg boo fi jógee ku si nekk mën laa seede seedeel bu baax tey ji lii rek mën nañ ni maanaam gàcce ngaaraama lañ koy wax ndax li nga xamante ne jot na fee liggéey si milieu li nga xamante ne jot na fee liggéey si li nga xamante ne moom moo di si restauration wala si affaire de styliste bi nga xamante ne moom loolu def tey am na su bëri ñoo xamante ne dugg nañ si milieu nga xamante ne moom moo di cinéma yàlla ak jëmm ji tax kon tey ji foo jaar ku si nekk war a mën a def seede bi nga xamante ne bu baax la seede bi nga xamante ne ku gis rafetlu gàcce ngaalaama sunu maman Miram yàlla sunu borom xaaree la àjjana yu gën a kawe jàcce ngaalaama yàlla suñu borom xaaree la àjjana yi nga xamante ni moo gën a kawe te woyofal suuf sa kaw lii moo nekkoon tey waxtaan bi ànd seeg Allô Sénégal ndax tey naqaratis sunu xol moo fees ba mënuñoo waxtaan lii rek sunu borom moo ko dogal te sunu borom bu dogalee foo jaar ñi nangu sunu borom lii rek la namm si si jaam sa àpp bu jotee da ngay dem kenn mënu si dara ñu ngi leen di ñaan ngeen wéy di abonné bés notification. ndax seen bii di Allô Sénégal mbégteeg jàmm bi rek moo leen daal di ñor